jërë ngeen jëf ami fidèle internaute Feeling Dakar ñu ngi am mbégteeg bànneex teewaat fi nga xamante ni mooy la première chaîne people et politique euh, du Sénégal alors tey nag ñu amaat mbégte ak bànneex ñëwaat fii ci Nations Unies te ku ne xam na ni sax bu nu ñëwee Nations Unies dañ fiy fekk ndaanaan bu mag fekk fi ki nga xamante ni euh, sunu kilifa la yaay la waaye grande dame la de valeur am personnalité am fulla am caractère ci boppam euh, te saa su ne yéen itam da ngeen di namm ay kàddoom ndax bu réew mi amee fu mu toll day baax ñu ñëw seet si ñi nga xamante ni bu ñu waxee askan wi dinañu taataan seen i kàddu waaye itam dinañ mën a jëfee li ñuy def koo koy borom Oumou waaye mooy borom ëttu ndaanaan borom 7TV ni ma koy faral di waxee mbokkum ndayu Amadou Bay Garmi doy na titre foncier ci réew mi waaye itam mbokkum dayu Alassane Mbaye jar na titre yaay booy ngooy caali Ngoy mbay maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ak bànneex teewaat fii sa kër ci Nations Unies waaye tam di kontaan ci ni ma nangulee interview bi. waaw Chérif xam nga yow macha allah nee naa la maag yow dañoo bëggante. dëgg la xam nga lu feeñ lu nekk ci xool rek dafay feeñ. ci jëmmi doomu aadama ji ak mm-hmm. image am ngay nag xale boo xam ne xale bu yaru nga xale bu baax ku xam àddina mën li ngay def ba pare boole ci discipline ak dal. tubaarkàlla macha allah élégance bu am solo bu am maanaa Euh, dañuy wax ne tubarkal tubarkalla euh, nit bu fekkee ni dafa am fu mu jëm il faut mu am lu mu bëgg. Mhm. nit bu fekkee dafa am fu mu jëm il faut mu am nu mu doxee nit bu fekkee dafa am fu mu bëgg àgg faaw mu am nu mu jëfee. te yow tubaarikàlla macha allah ku la xool xam ne am nga loo mbappat demee incha allah am nga loo mbappat ëllëg bu neexee yàlla te yàlla na nga ci yegg ak salaam noonu laay jaaree nuyu. amis internautes yi. rawatina waa filing dakaar bi nga xamante ni dañ ma bëggal seen bopp macha allah. sama kër la euh, tubaarikàlla macha allah. ñaanal leen gudd fan ak wér ñaanal mboolem ku seetaan émission bi ma def ak Chérif. tubaarkàlla macha allah ànd cee nag nee naa leen jëndee caméraman bi nga xamante ni may ci jigéen tubaarkàlla muy xale ba pare fexe ba def boppam leader manqué ay empreinte am mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér seen chauffeur bi ngeen àndal ngom ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér nga fekk ma fii nag fii ci Nations Unies fi nga xam ne fi laa dëkk sama kër mhm. tubaarkàlla macha allah Chérif daf may neex maag mhm. yow ñuy jàkkaarloo nuyu naa jërëjëf kontaan naa si sa nuyu am na solo waaye damay daal dugg ci waxtaan bi ku mhm. xam na ni sa jot bëriwul mhm. ah dañ la gàttal sax ndax nag eh, man damay sawar ci say waxtaan <laughs> damay sawar nga ngay eh, wax ay kàddu yi nga xamante dina tax askan wi mën a gindeeku waaye ñun tam ay ndaw ñu mën a eh, jël yoon wu waax bi tey yaay booy ngay yaay te macha allah ngay madame ndaw ndaw saane aral faxa borom document comme ni ah. ngay bàkkee sëñ bi waaw njaxana ko du biige jokom ndaw ko du biige dëgg la bëlëb ma ca ndukumaan sande naaram faxa njaxara nga sere ko ñeeri numee nga saañu mbaar kooku la ma yàlla booleel nag muy nit ko baax. dëgg la macha allah yow bi nga nekkee ci euh, biir ne bu sëy nga gis tey jamono di dox ba ñu naan euh, violence faite aux femmes. Mm. ñuy dóor jigéen wala jigéen ñu ngi koy tëj ci jëm ci ay kàddu ay wax mm. ay defin. Euh, lan ngay lan nga jàngatee ka kaa jeena ba bi moo tax euh, sax may wax ndax gis nga askan yëpp jóg euh, poto yi ñu partagé ko ñu ni justice pour jeena ba yow bi nga jegee yu ni noo ko jàngatee yaay booy. xam nga Chérif ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk internet yi normalement jigéen ñi dañu waroon jug marché hmm. ñëpp def ay t-shirt def ci photo ba ni ma ni juste ba parce que jigéen lañ tóor deretam jigéen lañu gaañ jigéen lañu néewal doole jigéen la ñu humilier te shérif mhm. euh, góor su demee ba joteeg jigéen ñuy laaj ñoom ñaar ku tooñ ku góor ko matatul kilifa mhm. ndax yàlla dogal na jigéen ci góor la jóge mhm. ci faaru góor la ñu créé jigéen ci faaru sunu maam Aadama kon góor toujours rek moom mooy puissance ci bu ko xamee nag mais puissance bi ci xel lay doon ci xalaat lay doon ci dégagement lay doon ci personnalité góor bi lay doon ci élégance am mm-hmm. parce que góor bu demee ba yëkkati loxoom di dóor jigéen rek dese naa doon góor dëgg daal te góor daal yi bi la gën a góor bi la gën a nekk ndaanaan ki la gën a nekk grand tom mm-hmm. day yor jigéen ji gën a dëng ba pare fexe ba maîtriser ko téye ko mm-hmm. parce que doomu aadama bu defee tey nga muñ ko mu defaat nga lemtu lemtu dafa am solo lan moo tax buñ dee takk jabar ñu ne la demal nga seet jigéen ju mën a muñ Chérif mhm. bu njëkk ba ñu ngi daan seete jabar ci robinet robinet robinet biñ daan dem di root ah merci beaucoup mhm. xale jigéen yëpp dañ daan dem di rooti soo rootee da ngay bëgg ndox mi set parce que ndox mi mën na jëm ci ndaa mën na jëm ci looy sangoo te boo dee sangu di nga ci sëlmu di nga ci raxas sa gémmiñ donc doo bëgg dara laal ndox mi mhm. bu mag ñi daan wut jabar dañuy dem ca robine ba fekk benn xale bu xamati ñu ne ko demal ñetti xale jigéen yee toog njëkkeel ca kay demal nga as ci ndoxam nga daw bu fekkee mu fubale ba ñëw loxo bi tilim su dee ku ku violent la jigéen bu vif su xale bi asee ci ndoxam da koy dàq ba dab ko ba mu laxasu ci mag mu dóor ko xet ñeer xale bi ne réel la ci suuf kooku bu ko jël bu demee sa kër du muñ uh-huh. nga dem ci keneen ne ko demal asal ma ca kële mu kooku mu as ci kooka daw kooko daq ko dox ñaari paa taxaw ni ko bëgg a ñëwaat lemtu na uh-huh. lemtu dafa am solo bu xale ba delluwaat as mu daw daq ko def ko na ko koy def ñu dem ca ñetteelu personne ba mu as ca kooko kooko ni ko ah da yàq ndox mi daal di tuur lool ni ko ba nga laalaat ko tuur loola kon tuur la daal di rootaat xale bi def ko ba muy ñetti yoon ñu ne la demal nga jël kay moo mën a muñ noonu ñu koy xoolee ci jigéen noonu lañ ko war a xoolee ci góor jigéen ñi nañuy xool ba pare shérif. Mhm. dafa am lu danger loo xam ne dañ ko banaliser te mu nekk modd boo xam ne dañ ko war a commencer léegi. muy la mais sëy ku góor ki ak ku jigéen ki la concerné war nañu sëy bu ñuy takkati léegi bu dee ci jàkka la na ku jigéen ki muuru ñëw toog ci jàkk ji. l'islam la digle jëkkër ji ñëw toog ci jàkka ji. conseiller bi ñuy wax ndaw si di ko wax ko góor gi ñu toog déglu ko ci biir jàkk ji. bu dee ci kër lañ ko mayee na xale bi ñëw toog ci bâche bi waa ji ñëw toog ci bâche bi ñu bokk ñoom ñaar waxtaan ak ñoom wax leen nan lañuy yore sëy des fois nit jëli seet ñu yónni ko bu demee dañuy topp protocole ba ak waxtaan wi ba conseiller ba ñu war a jox seet bi duñ ko ko jox mu war a ñibbi si ñëw rendre kooku compte ànd ak seet bi ñu topp ambiance beeg laax bi ba waa ji duñ ko mën a duñ ko wax li mu war a def ak jabaram li xew. Mhm. di lu garaaw di lu ñaaw. Mhm. xëy na ndaw si benn erreur rek man laa ko blâmer jëkkër sang la su dee mer nga ba mer bul foto kenn di génne sa awra borom kër. Mm, loolu sutura. dafa am solo. Mhm. man liñ ko def yépp naqari na ma. mais benn benn benn erreur bu mag rek la def te loolu moo tax tey li ko dal dal ko ba tey ñu waroon koo dàmp tëj ko ci. Mhm. waroon ko wax am ñoo xam ne mën nañ taxaw wax ko xale jigéen ñi nañu am sutura shérif. waaw ah, shérif sutura sutura sutura mu ngi mu ngi gental mu ngi dem. Mhm. neewoon naa la fi mag ñi dañ daan tabax seen kër ba pare. buntu kër ga ñu jël ko def ci mbañ gàcce xam nga luy mbañ gàcce mhm. tabax sa buntu kër ba pare def ci benn mur boo xam ne booy dugg dangay jaar gauche doog a dugg wala nga jaar droite doog dugg luñ ci mhm. jublu mooy doo ñëw rek dugg doo ñëw rek dugg bu kee fekkee nit dafa tëñu wala coow am wala wax am balaa kenn dugg ñoom mën nañoo defaraat seen toogaay mhm. loolu mooy mbañ gàcce bu ñu amatul bu ñu ko amul ci mur ñu def ko ci ci sàkket même këru baraag yi këru kër yi nga xamante ni këru kiritining la mhm. dañ ci daan def mañ gàcce sàkket léegi mañ gàcce boobu la xale yu jigéen yi dindi sànni ko ca àll ba dindi loo ko seeni parce que ba ñu demee ba naan njaboot gi njabootu kanaara la da ngay jiitu mu topp sa ginnaaw mais yow xale di toog yéeg ci kaw garab du gis dara mag toog fi mu toog di gis lu bari déggit fu sori ñu ne la toppal ki nga xam ne dafa aveugle mm. kon gumba ngay doon bu ko topp pour ma koy topp du ma la topp parce que maa la jur. te yàlla xale mag du yàlla may yàgg naa ak moom. te jamono juñ toll faw nit ñi defaraat seen toogaay da ngay gis ba ci célébrité yi. Mhm. ku ci am sëy ngay sëy sa jëkkër sëy ba mitti nga am ak moom problème doo ko génne de danga naan pat. Mhm. di ko mba pat sa sa jëkkër boo génnee daal di dugg studio boo duggee studio daal def say affaire kër ma ñangaan daal di bëgg a jël sa jëkkër weer ko ubbi ko def ko muy sa buzz pour nga jaay sa kaset. Mhm. yaay booy yaa ngi wax lu am solo. pour lan loolu. ko loolu nag dafa mel ni tendance la léegi. surtout ci artistes yi da ngay balaa ñoo mën a génn. di waaj a génnee kaset wala single def nañu émission wax lu ñu dundul seen sëy une semaine après nga clip ba génn. mais jaayee ko seeni kaset ma ana maam jaara Buso mi jur mhm. Cheikhul Khadim ana maam Astu Jànka yaayi baay ana maam Fawade Wele. te ñoom ñoo ñu gënoon a metti jamono. Mm-hmm. xale yi nañ defaraat seen toogaay te wayjur yi sëyloo leen. Mm-hmm. sëy tuddul sëy sëy la tudd. nee naa leen jigéen pour mu mën a sëy faw mu yor ñetti jikko yi di nga yor jikkoy suuf. Mm-hmm. suuf loo ko teg mu muñ ko. di nga yor jikkoy galaas lu tàng mu sedd waaye nag di nga yor jikkoy leket foo dem yokk ko. mais yaay boo yaa wax sànq lu am solo mooy parent yi nu mu sëyloo seen doom. te tey bu nu jëlee cas jéena ba mm-hmm. mm-hmm. apparemment euh, dañ ko doon dóor mu ñëw làqatu si si waa kër ñu ne ko mm-hmm. dellul nga sëy mu demaat ci coono googu ak dóor googu est-ce tam te doom war nga ko sëyloo mais est-ce war nga koo dugal ci naqar wala ci metti xam nga dañ dul xool sëy yi jay na ba nag meree naa ko fenn rek man su ma demee ba nopp sama jëkkër ba attanuma ko ñàkk damay maslaxa parce que ni ma déggee d'après ku bëgg boroom këram la bu ko ay waay juróom nañu dem ñu parce que kaay ma wax la benn affaire. góor gi la bëgg. fonk la bu demee ba di la def yenn yi bu fekkee nag du koo xamante ni dafa feebar parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir nit ñi waaye obsédé lañ wéruñu ah mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir nit ñi mais wéruñu ay obsédé lañ te sénégalais tant que ab dof summeekuwul def taati neen lekkul ci ñamu mbaam bërënguwul ci mbedd mi pour ñoom dofuñu te am na ñu dof ne ci biir kër te am na dof yoo xam ne dañuy sol costume def cravate sañca ba jekk toog di wax ak nit ñi fekk dem nañ nekkuñu fa duñu wax waxi nit duñu def yoo fi nit mhm. parce que nit ku ne ci kàddoom rek nga koy xamee Chérif dafa am waxi waxi manquant yoo xamante ni su ko nit baree ci li muy wax seet leen ko au fond ci xelam ndax nit la mhm. lan moo tax tubaab boo ko indilee boo ko indilee ku matadi wala ku ñuy yaakaar ndax dof na te summeekuwul te deful yëfi dof léeg-léeg la koy dikkal day dem jël benn objet boo xamante ni lu ñu war a liggéey la. Mhm. loo xamante ni tey lu mel ne lu ñu war a monter. wala lu ñu war a defal. Mhm. mu jël ko jox ko ko ba pare toog di ko seetaan. Mhm. ndax dina ko defar wala du ko defal wala dina wax waxi nit wala du wax waxi nit. dama lay nettali benn anecdote waaja papaam dafa dee dañ doon lam laamee ndax dof na wala dofut <laughs> waa papaam dee ñu miraas papa mm-hmm. ñépp la ñu jox joxuñu ko moom mu ne waa moom xanaa moom bokku ci ah, parce que moom baayam dafa dee mm-hmm. kon lu tax ñu miraas ko jox ñépp te joxuñu ko parce que papaam amul sagar li mu yor yëpp yëre yu baax la mm-hmm. ñu yëkkati caaya ak forog ak mbaxane ma jox ko au lieu mu toog mu jug di fecc naan fàtteetuma deeg bàyyi gaa këyi ga këyug hmm. mbubb ne këyug mbaxanaa ne këyug këyug euh, kii euh, déedéet këyug mbubb ne këyug mbaxanaa ne këyug këyug këyug oto hmm. ana ana oto buñ ko jox ah. parce que wérul kon jug na fecc hmm. ku sa baay dee ñu miraas la jox la mbaxana jox la mbubb nga jug di ko fecc mais wéroo mais bi mu ko joxee liñ koy jox la def yëfi dof Chérif nañu càmbaraat xel yi mhm. nañu defaraat toogaay yi nañu yokkaat yar yi nañu delloo suñu bopp ci yàlla nañuy julli waxtu yu juróom nañuy waxi subhanallah nañuy wax ons bi nga xam ne seytaan dajib nañuy dàq seytaane nañuy jël ay satala di ci naan xol yi di wàcc mhm. xol tàng na gaaw naa tàng te xol yi léegi maara day im siment sumaana laay bu njëkk ba dafa ragaloon dee ak deret léegi deeg naan ci ndox mi lañ jëmale moog jus bii ma teg ñoo yem. Mhm. mbaa jàmm moo xew ci réew mi lii mbaa jàmm la. Ah, dëkk mel na ne belefete nag. <laughs> belefete foo lii du jàmm <laughs> mais yaay yaa ngi koy wax sànq. Mhm. est-ce que euh, am sa jëkkër ku ne xam na ne jëkkër ak jabar yëpp foofu la amee. Mhm. Euh, nga photo ko. Euh, wala nga vidéo ko di ko ko menacé te loolu dafa nekk tendance léegi. gis nga lomotif yi bëri. audio fuite yi bëri. sutura gi amoon ci nit ñi yar moom amatul. wala nit ñi ñoo xamatul fa la ñuy teg seen moom la arab di wax ëdëb amul Sénégal. ba ñu jëlee saaga def ko mode. jël wax ju ñaaw def ko mode. Mhm. te ku ñuy sa ay yaay ak a sonn. Ah, sa nangam yaay sa nangam yaay sa ah. nangam yaay ay yaay sonn. Mhm. te yaayee ëmb yaayee wusin yaayee nangam maanaam saaga baay jubuwu leen yaay yaay yaay yaay ba kañ. Mhm. bi saaga def fi nekkee mode la dëkk bi yàqu ker sa amatul. bi mu demee ba nit ki di def lu bon yàlla suturaal la parce que yàlla def ne tey même boo dee mooy sax na juróom na juróom ñaari nit yu kenn bokkul fu ñu jógee ñooy wax ne ku ne ne teg naa sama bët ñu lay doog a jaarale ci yoon. mu ngi taataan ci sutura ba tey. léegi yow yaay dem def sa lu bon ba pare ñëw taal sa internet ubbi sa làmmiñ écarté ci jigéen te bu njëkk ba ñu ne làmmiñu jigéen awra mhm. ñu def ko mot. akataay jigéen sax boo dee jaay diw di yuuxu. boo dee jaay bool di yuuxu boo dee jaay mbubb di yuuxu looy def amatuñu classe amatuñu maanaa mm-hmm. wut mën nga koo am ndax commerce dafa dafa barkeel yenent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu commerce barkeel parce que mm-hmm. métier Muhammad la woon alayhi salaatu wasalaam am na solo yaay booy léegi nag tant que écarté woo génnewoo li nga am weeroo sa bopp waxoo ne am naa xaalis léegi am naa or am naa lii am naa laa ci internet bi pour yow amoo buzz nekkoo célébrité res wa ca ginaar ba muy sab bu njëlee naga ku ko ëppale mën nga cee am reer ci ndékki te bu xëy du ne mbaam. yaay booy waxaatal loolu nga ne. dama ne res wi ci ginaar. Mhm. naga ko ko ëppale. te bu fajaree ginaar rek ngay dégg mu ne ko korikook te mënoo ceen dékki benn resu ginaar suuru la te bu nag mën nga cee ndékki añci reer te nag du yëngu bërigo bu feesee du yëngatu ñiy wax duñu ci dara ñi am ñu ngi toog ci seen biir kër yar seen bopp yar seen njaboot bëgg bu ëllëgee bu seeni sët te nag màgget day ama ah. ñëppay nekk mag mm-hmm. bu ëllëgee bu la say sët dee seetaan wala say sëtaat wala doomu aadama yi di la seetaan waa yow am njaay boo ubbee sa téléphone def zoom sa kanam di wax ba ñuy seen sa làmmiñ wu ndaw mais am nga sutura bala ngaa wax ngàllee ko ba xar bala ngaa jaay ngal lan wuy le problème. Sénégal nag yaay booy na nit ñi dal Chérif. Mhm. nit ñi nañu dal. d'accord am na solo fi ma bëgg a duggaat yaay booy boobu ba tey jotuñu cee mhm. waxtaan euh, ku ne xam na ni da euh, Dabala daan na ñëw seen plateau euh, Feeling Dakar um mhm. kii umu show 7TV ñëw na fa ñëwaat fa wallaay Aziz ah, bi moom ak xale bi mu àndaloon mhm. waali nekkoon jur ay coow jur polémique gu bëri tey ba nga yëgee loolu ni mel ba tey ji mu nekk ci loxol yoon ñu ciy cité itam jigéen yan jàngat nga ci am li ma gis mooy léegi yaasin buubu yi jeex nañ mm-hmm. njëmbat mbooj yi jeex nañ jigéene waalo yi jeex nañ mm-hmm. maam asta waalo jeex nañ parce que bañ ku leen desonoore moo tax ñu bokk dugg ci néeg taal seen bopp mm-hmm. dama seetaan benn théâtre muy ki doon wax naan benn baaraam joxoñ la nu mu tudd waaw gelawaar gelawaar waaye bu juróom yi ma tey ñaan la ciim yéen ñàkk jom jom bu génnee ci nit dara desatu ca. dëgg jigéen ñi amatuñu ngor amatuñu jom amatuñu fulla amatuñu fayda amatuñu kersa seen li gën a cher ci ñoom moom la ñu lal asaaloo ko moo tax góor ñi xamatuñu valeur jigéen. tout ma ñëw nag ci affaire Aziz. Mhm. muy lu metti yi. Mhm. loo xamante ni ba tey jii damay ñaan yàlla. Mhm. Aziz Dabala yal na yàlla niit ay mbiram. amiin ba pare Chérif ma gis ci yu bari yu mën a affaire Nabou Leye naqari na ma am na ci femme bu ñuy wax maam waalo la xaw ma. maam waalo sama collègue la maa koy nuyu. ah bon ci yéen la nekk. waaw waaw mais de passage wax leen ko mu dal. xam nga tey dañuy def émission di waxtaan. makiyewu naa def naa sil sañsa naa toog na parce que émission bi moo ko laaj bi Aziz Dabala dee dama ko mere. di wër numéro pour wax ko mu dem toog. nit mënul dee ñu rey ko rey bu metti ay mbokkam toog te ba Aziz di dund gisuñu ko ak moom mu pose ay sil teg jaaroom fii te moom kilifa lay ndurool bënn piercing man waruñu ñun ñun ay grande dame lañu léegi te grand dame dafa am lu mu war a wane. Mm-hmm. loolu jeune fii am vingt ans vingt deux ans ba vingt cinq ans mën nañu piercing mais trente ans quarante ans jàpp quarante et quelque temps na génn ci gaam boobu mu teg ay ba ci buntu police bi. tribunal bi keroog bi ñu koy àtte def ay sil yu gudd def cloche ba mu niin muy expliqué di kapp kapp lan la bi muy laxasu nabu lay mu ngi def ay sil yu guddu mais dindi ko nga sànni ko mm-hmm. nga toog nga wax ak nit ñi ba pare il est dans tous les sens. waaw fan yii maa koy nuyu muy nuyu am problème fan yii. ak ki nga xamante ni euh, mooy euh, benn tiktok rox. Mm-hmm. Mm-hmm. xaw ma am fan yii ay jàmmaarloo ci tiktok bi. xam nga waxtaan nañ fi ma ak yow ci Mbodja Mbaye. waaw bu mu banaliser boppam na jël déggeen chimère jaw ak ku mel ne Eva Tra mu def ko mu def ko idolam mhm. Eva Tra zéro faute est-ce que xam nga bëri na émission yu may def su ma paree takk dama koy jox Eva ni ko xoolal koy nuyu de passage bu baax nit ku baax jigéen grande dame ku riche ku am maanaa mhm. kuy wax ndànk koo xam ne xëccuwul dara lu jot yomb xanaa xamuloo ne li ñor bi moo gën li ñu gësam faw mu am fu ñorul di jooy mhm. te bu ñorulee boo ko lekkee sa fii lay jàpp animatrice nga yaa ngi koy jàng jàngal ba ci kanam des na communication des na waxtaanam des na maam waalo dafa des d'accord na dal wax ndànk def ndànk wàññi sa lépp bu jaree nga def bu problème amee dindi xeef sil yi mu def euh, dem ci mu def makk yéewu defar boppam def nii ma def waru ko ci dëj bi loolu ça m'a touché te moom am na doom. Mhm. bu fekkoon doomam moo dee du ko def fan la ko teg boo bëggee rafet di nga rafet mais am na yoo xam ne bu amee ñaawlul Aziz Dabala nit la te moom nam ko wanee ci affaire bi boole ci boppam mel ni ku ci bokk man ba may dem dëju Sofi Ndiaye amu ci te yàlla na ko yàlla yërëm sama xarit bi. waaw Sofi Ndiaye maa ngi koy maa ngi koy rendre hommage. rendre hommage amul kenn koo xam ne ko coiffeuse nga. te man mardi la ñu wax macha allah ndeysaan sama benn xarit bu ñuy wax Absa Giro mu ndayale ma taaw ma ndayale ko sama taaw madame Mbacke mu juboole maak moom defar ñëpp su fi njaay juboole ñëpp boole ñëpp ñuy benn ba pare doo ko dem na hmm. amul kenn ku dem ca dëj ba xëcc ay xef mbaa nga jël gloche mbaa nga puudar mbaa nga paselu mais Aziz Dabala dafa dee yow nga jël dëj ba téyel ko sa bopp ame mais dindi say xef ñu xam ne na xari na la hmm. dindi sa gloche ñu xam ne na xari na la périg bi loo koy tege dem salon jigéen nga may jigéen ñu bokk milieu bi te milieu animatrice dafa doy lu ko doy waar lu garaaw ku ko mën nëbbu ci làqu ci def ci lu rafet ngir ëllëg dégg ngeen amul benn vidéo bu ñaaw. Mm-hmm. doo dégg mu wax lu ñaaw doo dégg mu wax lu ñaaw doo dégg mu def lu ñaaw doo dégg mukk ñu ne la lii dégg ngeen Chimère ko def muy lu ñaaw. teen ñun yàgg-yàgg dañuy dem ne moom yàgg-yàgg suñu vidéo na fi te war nañu fexe suñu vidéo yi ku ko jàng ba xool ñu du ne accam du ne maire bi moo vulgaire wala maire bi moo manqué wala maire bi moo ñàkk fayda na def tres attention surtout Feeling Dakar ay leader a fa nekk kon bu fa nekkee ngeen placé ko fa la mu di fa liggéey na fexe ba doon exemplaire nit ñu di ko topp man Ngoy mbay damaa bëgg ñu di ma topp lan moo tax ëttu ndaanaan parce que am na ñu ma bëgg jigg man li may sol ci ëttu ndaanaan yëpp mille francs lay jar passé wu ma 7000 francs dama bëgg ki may bëgg mu gisee mbubb mi mu neex ko mu dem jëndi ko 7000 du parce que ku ne am nga ku la bëgg am na ku lay topp boo bëggee jël mbubu 150000 muy sa idole bëgg la bëgg loo sol mu sol ko du ko mën a sol nit ki da ngay defaraat sa toogaay mais saaga yi ci TikTok bi yaay booy mu bëri lool léegi live fi waxante lu ñaaw su su ñante sutura laay fii TikTok bi yaay. Chérif Soda Mama dafa mës a toog di def benn émission. Mhm. ñu ne ko Soda Mama ñi toog ci raay bi fii ci ginnaaw raay ñi toog ci kaw raay bi bu saxaar si dee bu saxaar bi waree ñëw lan nga war a wax ci ñoom pour tere leen ko. Mhm. mu ne ñi toog ci kaw raay bi nañ leen bàyyi saxaar bi bu ñëwee dinañ dem ñoo ñu di saaga nañ leen bàyyi ak yàlla. Mhm. est-ce que xam nga Chérif defal ñaari ndox. Uh-huh. nga teg ko fi def ko ci kaasu verre yii. Uh-huh. gis nga ni mu leeree. nga def fii ndox benn bideel benn bidon bii. Uh-huh. ngay jël sotti fee sotti fii. nga tiim kaas bu njëkk bi naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah. chérif yaa baax. nit ki moo gën diw moo riche diw moo am maanaa loo wax rek ëf ko ci ndox mi soo paree nga jël beneen ndox mi. nga teg ko di dàgg saaga fu mu gën a ñaawe di wax doomu aadama yi lu ñaaw fu mu gën a ñaawe soo paree nga congelé ñaari ndox yi nga foto leen nga xool ndox bi nga tiim di wax lu bon ni muy ragloo ak beneen ndox bi ni muy mel essayé lii ma la wax gémmiñ koy wax lu ñaaw faw bu dajeek mun kiir ak mu nakkiir te nag ñëppay dugg biir suuf mhm. te ñi lay robi mënuñoo sàmba mënul kanamam mën ginnaawam bu ñu doxee juróom-ñaari jéego munkir dañ ñëw taxaw mu nàkkir ñëw taxaw bu dee weerkatu nit nga woon bu dee waxkatu nit lu bon nga woon bu doon da ngaa jëloon lu bon di ko wax pour def ko muy sa métier dinañ taxawi sa làmmiñ wi ba mu day ne mel ni téeméeri junniy meetar ñu di ko xëcc boole ko di la mbugal jigéen day wàcce làmmiñam jigéen day wàcce gémmiñam yenn yi góor la jig ci góor ay nekk fii di naan sàngara di mooy yàlla di def lu ko neex soppeeku def ñu def ko léegi imaam may ko jigéen di gën a sell ci koñ bi. loolu góor la ko yàlla jox. kon saaga yi ñuy saaga pour man dañoo alku rek te yëguñu ne alku nañ. dañoo génn feddi géew ànd ak seytaane seyaatin te yëguñu ne seyaatin lañ àndal. dañoo dem jaar ci beneen yoon ñooñu du duñu waa kër Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam duñu waa këram. Muhammad képp ku bokk ci moom te bëgg ko sa gémmiñ di nga ci wax lu rafet. man de gënuma kenn ëpp ma kenn xel ëpp ma kenn lu baax waaye bëgg naa fu ñu nee ngoy caali ñu ne ak mën a wax lu rafet mhm. aka mën a wax lu baax fu ñu nee Chérif ñu ne ak mën a boole ak mën a wax lu rafet buñ ñee may ñu ne ak mën a filme ak a xarañ mhm. buñ ñee seen chauffeur bi ngom ñu ne ak mën a dawal waaye ak a réglé ca tali mhm. nit lu muy def rek war naa fexe ba gën ca solo am na solo yaay booy eh, jërëjëf kàddu yi sell na fi ma bëgg ñu duggaat fa rek eh, mhm. mooy politique bi. Mhm. gis naa fan yi itam nga def vidéo. Mhm. Eh, dinaan libéré Bougane. Bougane nag actuellement mu foofu lay ca ñu denc caabi féete ko ginnaaw. ñu jàpp ni injustement lañ ko jàppee ñii ne non dafa jalkati yoon. yow libéré Bougane bi ñu koy def sa soutien ci Bougane lan la. moo mi dem àjjana mu ñàkk lu metti yor ay jirim. yor ay baayo plus jirim parce que muumi coono ko jur te muumi am naag bugaan ay doom mhm. ay doomi bugaan gisuñu yaay gisuñu maam bu jigéen gisuñu maam bu góor waali mooy maam mooy yaay mooy bàjjen mooy muumi mhm. te nit bu ko lu metti dalee danga koy yërëm ku dul yërëm kenn du la yërëm yàlla sunu borom mi nga xam ne moo nu sàkk njiit buñ ko dee sàkk bëgg nañ ci tuuti mu am yërmaande te ki nga xamante ne dafa jaar fenn ba jàll mais moo mën a wax keneen ki fi jaaragul heure bii daaw ñu ngi ñaanal Sonko ñaanal Jomaay bëgguñu kenn ku leen tudd kon bu fekkee ne buggaan dafa am ñu ñu xiif ñoo xam ne dégg nañ ne Bougane a ngi ñëw te seen yaakaar nga ci am na ci ñu am jirim am na ci ñu nekk baayo nekk ci ndox dëkk ci ndox di ca tëdd di ca yeewu metti na mhm. bu yàlla dogalee mu am mu am stratégie boobu nañ ko ni boo mënta jàll taxawal kon xaaral mbaa buñ ko fa yóbboo ba mu sedd rek ñu génne ko man loolu laa bëggoon parce que Sénégal sunu gaal la te nag nañ leen ko joowute bañ koo bañ koo dëngal bañ koo tuur te metti metti yi bari na soo gisee ma ni libéré Bougane sama xel dafa dem ci coon mhm. dem ci jaaga mhm. dem ci muumi te ñoom ñëpp ñu demandoo ci benn at. mu ne nag wax wax ju am solo te baatu bugaan boobu na ko ñu bëri jël man j'ai bien préparé te préparé naa sama njaboot. loolu na ko njaboot ju ne def parce que yàlla bàyyiwu fi kenn éternellement te gunge du àgg. te dee gën a ñëpp te ñëpp dinañ ci jaar. loolu laa xool moo tax ma ne libéré Bougane ñu bàyyi ko mu dem dawali yàlla ndax lu baax rek la doon def. te lu baax boo ko dee def ba lu bon di la ci fekk waa kon ana def lu baax day tax ñeneen ñi bëgg a def découragé mbaa ñeneen ñi bëgg a def seen xol xat mbaa mu tàng kon donc man ma waxoon rek laay waxaat maak Oumou Sow libéré Bougane amul sens te Bougane Gueye tubaarkàlla macha allah xëy na seen waay la ñoom ay waay la ñu woon te àddina du cere mais des na ko laalu mmh. mais politique bi di muy demee yaay booy gis nga ko mmh. euh, jamono ji tëjante bi bëri na mmh. euh, waxante lu ñaaw li bëri na sullante ay mbóot bëri na waaye itam dëkk bi gis na ni euh, taxaw na tam waaye taxawul ndànk. xanaa xamul leen ni dëkk bee raw ànd. fur na bu ñuy bayal gisuma côté bu sedd fépp a ngi bax. Chérif est-ce que xam nga dem na ba nga xamante ni fas food yi gisatuñu ay clients. waaw resto yi gisatuñu ay clients. brioche yi gisatuñu ay clients. ñi nga xamante ni ñoo doon jaay ba ci yeneen yi bëgguma publicité. Mhm. kenn gisatul client ku dul jaaykatu soow yi cere ak soow ak cere. ak fonde ak laalo ak fonde loolu de moo fi jar te cent franc la deux dëkk bi fi jëm du jam nit ki da ngaa war a dugg ci dara yokk cin bu naree neex bu ba xeexeeñ man de tiit naa. Mm. je ne comprends pas je ne plus. lu waay mënoon mënatu ko lu waay doon def defatu ko dinañ dem nag ba nga xamante ne léegi nit ñi wàññi nañu toggatuñu reer. Ah, añ rek la ñuy togg. ndékki lii dañ koy kolo kolo parce que mm-hmm. xale yi il faut ñu dem école jàngi. Mm-hmm. dinañ dem ba añ bi boo moytuwul som bi mooy baax mbaa cerek soow mbaa nga gis ku jël soowam jënd 500 sotti ci 500 biscuit yëngal ko ay doomam tiim ko ñu di ko sirik. ak mburu mu wow bi ñuy poncé. mburu mu wow ko moom kenn yóbbootu ko fenn ñu di ko mburaake nit ñaa ngi koy jënd sax léegi di ko lekk jàmm xawul ci réew mi de mën na xaw ma ku tiitul mais man ngooy bay tiit naa gisuma jàmm de. am na solo yaay booy dama bëgg a dugaat fu am solo yaa ngi wax tudd sànq moom yi te hmm. euh, ñu ngi ci octobre rose boo gisee. ni ma ni ma ñëwee ni octobre rose. wallaay chérif euh, lu metti cancer. wallaay wallaay wallaay euh, dañ ciy sensibiliser jigéen ñi ñëpp lay daal itam waaye rawatina jigéen ñi. wallaay wallaay yaay booy octobre rose cancer bi lëmbee jamono. damaa yaakaar ni rek chérif. Hmm. yàlla moo mer rek. Hmm. moo tax mbugal mi bari. waaw ah, bari. te lu mu bon bon bon bon bon. Mhm. góor ñi gën nañu ragal yàlla jigéen ñi. Ah, da ngay gis jamono ñi ci benn côté d'accord. Mhm, mhm. boo duggee ci internet bi bu cinquante góor waxee mil jigéen tontu nañ. dëgg la. te ca la nga war a wax ak la nga war ta wax balaa nu ne la ko yàlla di wàcce léeg mu yëngal suuf si léeg mu jël ndox mi. xoolal kaas fee la fa xew fi bugaan doon dem. Bakel xoolal Bakel xoolal Bakel ak Tamba. xale yi barki dem bi ma leen gisee Chérif damaa jooy. Mm. est-ce que xam nga Chérif. ça fait un mois ngi nii fajar gu jot dina def ay dog pour ñaanal Sénégal jàmm. Mm-hmm. macha parce que dama tiit. nga gis cancer bi ni mu fi mel jamono yi daaw ko mel. Mm-hmm. boo ma saan dégg mu rey benn jigéen wala mu rey benn nit. wala mu koy reyaat yàllaa xam. mais léegi da ngay gis jigéen ju écarté maan nii maan nii maan bàyyiwuñu xeex bi bàyyiwuñu defante bi mhm. bàyyiwuñu euh, maanaam bokk far bi bàyyiwuñu bokk góor ku jege di toj dëkk bi lan la <laughs> man la moo jëkkëru jàmbur sax d'accord ma ko parce que jëkkëru jàmbur amul na franchement parlant Chérif loolu moom slogan la boo xam ne nañ ko bàyyi jëkkëru jàmbur amul femme de quelqu'un amul non dama amul moomuñu góor ñi d'accord man ñaareel la je suis une deuxième moomuñu góor ñi. bi leen seen yaay ak seen papa yi du jur. du woon pour aawa du pour ñaare du pour ñette pour ñeenteel góor ñi dañ fee nekk. nekk yor ay di di am droit takk ñeenti jabar. Mhm. mais boo dee ñaareel ñu ne jëkkëru jàmbur la jël boo dee ñetteel ñu ne jëkkëru jàmbur boo nee nangam mais jëkkër lan mooy jëkkëru jàmbur. yaa ko moom bi ko ndaay mag baayam di jur pour yow kese la woon wala yaay mag papaam dañ laa tàggu. yaay booy yow tim ñaareel yi moom fi mu ne nii moom. dinañ dinañ la woo décoré <laughs> non mais ñaareel yi ñetteel yi ñeenteel yi mm. ñëpp jëkkëru jàmbur amul. jëkkër jëkkër la jëkkër jëkkër la. d'accord te yow mi awo ma dib ñaareel ngay ñetteel di ñeenteel ñoo yem même point d'égalité amul kenn ku moom kenn góor ñi dañ leen di bokk mayonnaise leen ñu bokk leen dañuy takk jigéen ñi lan la. où est le problème nañu lekk ci ceeb bi naan ci ndox mi ku am fulla nag ba matale sa place ba sa jëkkër xelam nekkul ci leneen am nga chance mais boo matalewul parce que mënuloo natt bu ne nga bokk ca buñ la joxee dépense su junni nga sàkk ca 1500 yi di nga fexe ba am ci nattu benn 1000 francs ak benn cinq 500 munoo toggal sa kër lu baax bu sa jëkkër génnee dem aye ji nga war a bale sa néeg defar sa néeg ba mu baax toppook nga topp grand place yi topp natt yi topp jamra yi. Mm-hmm. di taxawaaloo ko doxo ko tendee falu dox ba naag bu sa jëkkër ñee fekk la nga dox ba sa lépp dem te jigéen dafa war di noppal yaramam mhm. jigéen fleur la pour mu frais il faut mu jox boppam benn gëdd yi sangu ba set toog noppal sa yaram jàpp julli toog réfléchir xalaat nan laay def ba téye sama jëkkër ji nan laay def ba toog yem ci moom soo la sa jëkkër joxee 5000 francs bu desee jël ko denc ko soo ayawaatee 5000 francs yi boo ca dencee mille francs ñetti yoon mën nga ca toggal sa jëkkër ginaar gu neex ndaw sa dafa ñëw ne dem ca sëriñ ba ni ko man kat sama jëkkër may ma jàmm ma salaam waaw waaw damaa bëgg nga ñaanal ma mu ne ko demal nga wutal ma ne meewu gaynde mhm. mu dem jënd yàppam bu duuf dem fekk gaynde gi fa mu tëdd muy raay gaynde gi di raay doomu gaynde gi ba jege ko di jël yàpp bi di saxal gaynde gi di raay gaynde gi di ko jox ba ratt meew ma indil ko sëriñ mu ne ko noo def barat ko mun expliquer ko na mu ko def mu ko boo ko defee sa jëkkër nga am ci jàmm te sa jëkkër gayndee ko gën a weex te fex nga ba indil ma meew mi soxlaw ma meew mi ñaanalu ma la dama la doon wan naka la mhm. sa jëkkër munul bu nee benn nga ne ñaar fukk doo fóotal sa jëkkër ay yéreem bu ñëwee wàcc nam ko fekkee woon sol sërëg t la ma waxoon jigéen ñi nañ bàyyi sërëg t-shirt nañu bàyyi bàyyi dafa tàng nañuy woddu ay sër nañuy sangu ba set man dama ni baadu ay wax baa dafa tàng. marché sax da ngay dem jigéen mook pochette yem. dafa bëri ay def-def. noo sol baa mu yend ci yow ba ngoon jot nga bëgg a ànd ak hygiène munoo jël cuissard sol ko ba ngoon jot mu ànd ak hygiène jëlal sa sër wordu ba mu baax def sa jupe sa tay baas féexal sa yaram tey sangu ba set di gommage sa yaram bi jéem a toog réfléchir ni uhu ni saa gis nga jigéen ji la gën a set gën laa am classe gën laa toog gën laa dal. moo la gën a rafet bu doon diwoo makari ki gën a mën a dox bu doon diwoo makari bi gën a cher du tax mu am li nga am sellalal maandul di tudd baatu laa ilaha illallah di gàttal sa tànk gàttal sa làmmiñ mm-hmm. te sa pays bi nga denc ko pour sa jëkkër jigéen ay feram génn néegam ah léegi jëkkër la crop top génne fer yi ko sa jëkkër soxlaa defarul ba jekk nga jox ko ko mm-hmm. teg fa fer ya bu paree dugal ko ca turuwaal ba moo ko moom bu ko yemalee nga ca mbedd ma moomatu ko moom ñëpp a ko bokk te góor ñu bari moom ñoom ñoo seeni jabar seen ak yeneen góor yi ñoo bokk seeni feri jabar takk sa ay fer takk sa ay bin bin def sa baa def ko lop top di wéexat te yor sa jëkkër waa léegi sa jëkkër lan la ko waa mbedd mi ëppalee nga bëgg mu def ci yow li mu war a def jigéen ju fi yemati réglé sa jëkkër def ci yow pen fer pour jëkkër la bàyyil ba heure ba jot nga def ca ba baax soo paree ubbi sa tuwaar ni ko ca ruugat te bàyyi sa ndigg noona ta dem te sol lu jot te def lu jot jigéen jii sëy dafa war a nëbb awraam bu bëggee jur jëkkër jigéen ju góor gu baax wala jigéen ju baax wala doom ju barkeel mais munoo jël sa lépp apaiser ko bàyyi ko ci biti ba pare bëgg ni damay jur lu baax sëy na la neex def la la neex def la la saf jur fa la am barke yàlla jox ko benn jigéen na jigéen ñi dal am na solo Chérif solo kon cancer bi loo waa xanaa wax jigéen ñi rek ñu dem defi dépistage mm-hmm. nag tubaarkàlla parce que nag tam moytu nag yi koy joxe. Mhm. parce que bëgg sa jëkkër toog naan kii naan docteur lii laa bëgguma jaar ci tur wi kenn naan docteur lee laa kii naan maay defal lii maay saf-safal jigéen maa la yokkal sa saf jigéen ñu bari am nañ ko saf-safal yii ñuy def. waaw loolu tam moo leen indil problème bi. bëri naa ci réew mi. gis nga gis nga gis nga savon ordinaire bi képp ku ko di dëkkoo. jël sa ndox ak sa xorom jël sa bicarbonate def sa ndox mu tàng loxo dafa am wee dafa am tooke jëlal sa gan nga sol ko raxas sa kanam ba mu set de temps en temps parce que dafa am organe yu nekk ci yow di la xeexal feebar yu bari mu la dugg raxasal ba mu set boo yemee ci sa jëkkër yem fa nga war a yem xool li ngay def dugaloo ci sa kanam dara yokkoo sa benn overdose yàlla mën na laa musal ci loolu waaye bu dee luñ la ne neex na yàlla booy wujje nag ne ma yokkuli ma yokkuli ma yokkuli musiba naaru laay lay doon ci yow jigéen ba ko yàlla di defar boole na koog bànneex boo gëmee sa bopp bañ a xeebu nobel di nga am jàmm di nga am salaam jigéen ñu bari yi ñu utiliser moo leen ko teg mhm. te jaaykat yi ñu ngi leen di lor te lépp la ñuy yokk dara naturelatul ange naturelu dënn naturelu <laughs> nit ñaa ngay opéré jigéen ñaa ngay yokk ange kenn ñu ngay chirurgie ñu ngay mais lan la boo yeggee ca yàlla mi la sàkk teg la def la tabax la ba nga yegg nga ni ko yàlla maa xool li neexuma ci man defaat naa ko maa dindi def lii maa def lii maa def lii mais lan la mm-hmm. ñu ci bari shérif mm-hmm. ñuy utiliser yokk na ko causé na ko gisoon naa fi benn vidéo bu ñu doon dugal ci internet bi mm-hmm. benn femme bu ñu doon wax yokk na dara ba na ma yàlla baal ay affaires yu génne ci kanamam muy génn nii mais lan la ci def est-ce que yow ñi leen koy jaay est-ce que ñoom loolu la ñuy utiliser danga koy xool ci xeesalkat bi la muy jaay ku mel ne saw sa boor day xam naa ko ci vingt ans muy jaay xeesal man diw umu saw rek tubaarkàlla macha allah laaloo ma diw keneen doo gis umu xoosu doo ko gis mu cere doo gis leneen ak leneen looy def rek fexeel ba doon ca leader jàng ko ba mokk boo ko jàngee ba mokk doo am problème conseiller daal bi ma leen di jox ceeb a ngi fi aldankee ngi fi naanal ceeb boo paree sa sa sa sa stérile sa sa sa indisposé